ci suñu sunu aqulaay taala parce que réew mi rek moom nu ñor man bokk bokkuma benn parti politique ma je suis de la société civile parce que syndicat lay jiite syndicat nag mooy ñi nga xam ne ñoom xëccoowul nguur xeexuñu ko yore nguur kon nag ñun ci digg bi lañ nekk ñoom lañu tuddee les structures intermédiaires man ci ñooñu laa bokk kon nag euh, lu xew ci réew mi dafa intéressé je ne suis pas un politicien mais je suis politique lépp lu xew ci réew mi dafa intéressé lépp donc loolu moo tax nag li nga xam ne mooy coow li depuis weer ci réew mi dama ciy wax sama xalaat. loolu moo jaaxal ñëpp sax daam euh, daam dañ ko doon gis ci mbirum euh, syndicalisme côté enseigne enseignement bi d'ailleurs yaa nekk ci bopp CUSEMS euh, authentique ñu jékki-jékki gis daam dugg ci politique bi carrément xamuñu nag yeneen yi ngay dugg ak yi ngay layal mais jamono ji moom en tout cas dañ naan sax est-ce que daam tal na enseignement bi. non man jàngaleetuma parce que depuis cinq ans. Euh, syndicalisme d'enseignant d'enseignant bi foofu laay waxee attends rek man moom ku ma laaj mun naa la tontu euh, man euh, ku ma xam xanaa ñi ma xamul mais ñi nga xam jàngandoo nañ ak man université Gaston Berger xam nañ ni bi may nekk de Saint-Louis xam nañ ni man bi may nekk déjà étudiant d'abord avant loolu parce que am na journal de la place bu def sama parcours xool fi may jaar depuis Kébémer bi may jëkk nekk dirigeant foofu ak Kébémer en tant wax ne de tout temps dama doon wax sama position ci li nga xam moo doon xew ci dëkk bi te j'étais tout petit ñu naan ma le jeune au dans longues donc Dame Mbodj mos fa soppeeku bi ma ñëwee à Louga c'est la même chose euh, loolu laa fa def dañ doon dugg ci ay aspects yu bëri yoo xam ne du woon sax suñuy mbir ñun en tant qu'élève waxuntuma laa nag revendication élèves yi ñu yore woon euh, loolu laa def université Gaston Berger bi ci gën a siiw mooy bi Abdou Diouf jàppante ak euh, la douane sénégalaise di jaay doole la douane sénégalaise parce que Mimran moo ko doon jàppale Memran euh, à l'époque am lu mu def douane téye euh, am coow. donc pour dire que. man sama engagement. man sama engagement musta nekk parce que un intellectuel d'abord la définition d'un intellectuel c'est celui qui s'occupe de ce qui ne le regarde donc man kenn du ma terroriser et qui di ma stigmatiser c'est la stigmatisation c'est me dire que yow jàngalekat nga sa yoon nekkul ci réew mi c'est-à-dire c'est la théorie de l'isolation quoi cest dire yéen ay imam ngeen seen yoon nekkul ci réew mi wax leen ci julli ak euh, yàlla leneen nekkul ci seen seen yoon nekkul ci leneen yéen médecin ngeen toog leen seen i officine ak seen i cabinet ak seen i hôpitaux ngeen faj nit ñi seen yoon nekkul ci réew mi yéen jàngalekat ngeen jàngale leen seen yoon loolu c'est la théorie de l'isolation pour pouvoir mettre la mais sur le pays loolu ñu koy def te ñooñu koy def ñun ñoo leen former c'est-à-dire da ngay gis ab politicien woyaa woyaa bu tekkiwul dara bërki démb lañ ko formé ñun mu am lissance wala mu am maîtrise taxaw di wax ci lépp am droit wax ci lépp au nom de quoi ñun ñi nga xam ñoo leen formé ñun noo yéen bu leen ci wax parce que du seen domaine il faut qu'on arrête aujourd'hui dans un pays où même des magistrats font la politique ku neex def politique man nag politique ma mais bis bu ma neexee damay politique comme ñëpp c'est pas interdit donc loolu c'est le premier la première chose la deuxième chose. mais je pense que euh, yéen syndicalistes yi euh, sur euh, terewuñ leen ngeen politique mais cest dire am na ci ay syndicats yoo xamante ni ñoom dañuy bañ ñu fësal ku ci nekk sa féetee parce que li ñuy boole ci biir syndicat bi mooy bëri li ñuy boole ci ay militants. mais politique nga gis boo xam ne dina dina boole PASTEF boole APR et tout ça. loolu la dire c'est ne rien comprendre des choses c'est-à-dire être politique ne veut pas dire être politicien c'est ça nous nous cest à man mun naa nekk quelqu'un boo si je foncièrement politique man lépp loolu tax man loolu laa déparé peut-être da nga ma dégluwul bi may départ dama ne la lépp lu xew ci réew mi damaa intéressé parce que lan mooy politique du ñoom ni ñu koy définir dañ ne c'est l'art de gérer la cité waaye ñun bokkuñ ci réew mi xanaa bañ bëgg ñu cee boddi réew mi lépp lu fiy politique daf ñuy intéressé ñun jàngalekat yi intéressé médecins yi intéressé ñëpp maintenant ñun li ñu dul def man sama syndicat li may tere mooy ma def politique politicienne maanaam dem far dem bokk ci ab parti di bokk ci ay instance di yëngal di fekk ay meeting et loolu lañ may tere mooy politique politicienne loolu def ma ko kenn mënta werante loolu parce que man même Ousmane sonk mii coow lii faraluma Ousmane Sonko damaa far ci dëgg mu leer nañ ni. Ah, ah, mais à t'entendre parler day mel ni. non à t'entendre loolu c'est le jugement de valeur man sa les jugements de valeur ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse mooy nga duut baaraam ni Dame mii ci Ousmane Sonko la bokk parce que ku man ngaa wax ne ci tel instance lañ bokk ci département wala ci région wala au niveau national man kenn mënta génne benn man xaw ma siège Pastef su man suñ ma tey taalal sa oto dem siège Pastef dama koy laajte yàlla xam Ousmane mosoo leen gisante mm, Ousmane am récépissé partem il l'a dit dans sa conférence de euh, que nee na léegi Ousmane Sonko Mbodj mais en réalité Ousmane Sonko mi ngi am récépissé xaw ma 2014 en 2015 en tout cas man ak moom ak El Malick ñu toog parce que El Malick man ak moom dañu doon daje ci benn entreprise foofu la ñu xamante mu ne ma léegi man maa ngi ci Ousmane Sonko dama bëgg yéen ñaar ngeen toog parce que vraiment ce serait intéressant ñu toog man ak moom Ousmane Sonko euh, donc ci benn restaurant bu nekk Point E ñu toog naan suñu café waxtaan de 17h à 19h bi timis jotee moom Ousmane Sonko moo ñu jiite man ak El Malick ñu toog waxtaan mu ne ma dama bëgg nga ñëw ci parti bi parce que maa ngi koy teg kenn xamaguma nag <laughs> comme ma ko waxoon à l'époque ni ma yow mais. Euh, dama bëgg la xamal ne la fa la ma annoncé livre bi njëkk a bind ne ma bu ma ko génnee nag xam naa fa lañ may dàq mais dàqwuñ ko ci loolu dañ ko dàq ci leneen jaay ko doole. d'accord mais dama bëggoon la foofa bi ma ko waxee dama ne ko man politique gu ma saay. te nga bàyyi sa syndicat te doo te doo mos